jeex na donc ndey mati waaw. waa euh, dis après la li mu lim lii yëpp contraire am. Mhm. moom la euh, délégué de quartier amna sax ño xamante dañ lay wax loo xam ne da leer amul. Mhm. ñu déglu ko pour xol ba xam lan la ci nit ñi xalaat. té ñu déglu ko te dellu si. gox bu nekk ci Sénégal amna délégué muy ki ñu tab ngir mu jité Omar Boubacar Saw, di délégué de quartier bu Almadi di addu ne comme nonu la gannaaw bi ñu leen da fay lacc ñu gëdal leen. délégué de quartier yi war nañ leen fulal man biñ may installé insister dans ci aspect boobu xam nga délégué de quartier bu la neexee nga wax ne moom moo gën a nekk en rapport avec les populations quartier yëpp bu ñu baaxee rek réew mi baax war nañu may suñu gëdd dañu yaakaar ne délégué de quartier nit koo xam ne day def euh, certificat de domicile rek day def wala bu famille X ak famille Y jote nañu rek oo leen délégué de quartier mu régler problème bi balaa ñuy dem justice ak yooyu non ça ça doit pas être le rôle du délégué de quartier. Souleymane Fall di firnde li monsieur Sow wax wante yamu ci am yeneen yu mu ci yokk. seen rôle dafa des. ndax mayuñu leen pouvoir bu dooy da ngay wax ak chef de quartier mu wax waa ji jaar fale ñooñu faral ko Mor Fall mu ngi fii chef de quartier mos naa waxtaan ak moom fii chef de quartier du seetaan lu bon du déglu lu bon war na mun a attee balaa mu dem police mu sécuriser quartier bi quartier bi mu nekk moo koy sécuriser Bolle Mbaye mu ngi fale marché Chavanel nun noo ko fal chef de quartier dafay def rôle police bu nit ñëwee fii indi convocation yóbbu ko chef de quartier danga war a wax comme ni Euh, avocat bi di waxee nga sécuriser ko nga ne na lii moo war lii moo war lii moo war dañu góorgóorlu ngi lay fay mu mel ni ku nekk ci Sénégal yi ak li nga jàpp ne mooy liggéeyub délégué de quartier délégué de quartier dafay nekk tampon entre diggante population bi muy quartier bi mu yor ak maire bi waaw parce que mu yu bari si foofu la war a jaar parce que léegi sax booy ut kayit attestation da ngay dem ci chef de quartier bi mu jox la ko nga dem maire yi ñu joxal la domicile officiellement war moo leen ma di fekk ngénte yi di dem ci dëj yi di dimbalewaatee parce que chef de quartier dafa nekk loo xam ni rôle la boo xam ni dañ ko xaw a kii mais lu lu am doole la ci ci ci dëkkin gannaaw yile kàddu laaj samp ngir xam ndax jotul ñu tënk rôlu délégué de quartier jébbal ko ku nekk ci askan wi am na solo maa ngi dégg léegi bi euh, benn góor gi di wax naan moom biñ koy installé euh, insisté na ci wax ni euh, nañu leen bàyyi ci gëdd bi ñu am et c'est je que seen rôle dafa important aussi. Mm-hmm. rôle bu am importance dañu am seulement nag bu leen di tabb benn étiquette boobu dafa dem léegi ba des. Mm-hmm. que ne kii moom moom que ne kii moom moo fi war a nekk su fekkente ne litige am na ci koñ bi moom moo war a nekk la première personne bu ñu war a dem seeti. pour mu mm. pour mu jubóole wala ngay laajte kër boo réeree dañ naan la demal. demal ci kër délégué de quartier bi war na xam fan la. Mhm. ngay euh, ngay ngay wut ay këyit ay attestation yooyu noonu dañ lay wax demal mais loolu kase euh, nekkul seen rôle parce que am na ci kenn koo xamante ne nee nañ euh, gox sax gox bi bu setee gox bu nekk bu setee mooy Sénégal set na. Mhm. ce qui veut dire que ne kon dañu war a jël ay pouvoir. déléguer leen ko comme ni nga xamante ne loolu loolu mooy seen tour ngir que mën a ñoom euh, ñu mën a exercer. Mhm. gis après mhm. c'est c'est important euh, Kals mais euh, man damay damay damay ñëw ci ay ci quelque ci quelques points d'abord le le statut du délégué de quartier. Mhm. wax wax naa ko sànq délégué de quartier délégué de délégué le délégué de quartier d'il y a peut-être 20 ans nekkul tey le même délégué de quartier la ñun koñ bi ñu yaroo màggee fa yaroo fa màggee fa tey xëy na am na ay locataires yu ñëw yu bees am na ay nit yu bees am chef de quartier bi xamu leen woon mais bu njëkk ba daan sanc si bu daan sanc si chef de quartier bi wala délégué de quartier bi tu te présentes. mais délégué délégué de quartier et chef de quartier ben la. appellation bi différente ah, ben là donc da nga da dem présenté wu mu xam ne yow yaay diw ah, parcelle tel qui a kii ak kii si sa njaboot la nekk jafe délégué de quartier boo xam ne du xam du xam c'est pas pour rien que boo daan réer ñu que demande demande euh, chef de quartier parce qu'il était supposé connaître euh, toutes les maisons mm-hmm. euh, de de de son quartier quartier mm-hmm. au-delà dafa doon nekk euh, euh, également euh, un médiateur communautaire boo seetloo bu yàgg ba dana daan xëy résoudre conflit yi daan daan xam également famille yi nga xam ne ñoo gën a ñoo gën a xëy na bi mm-hmm. généralement daan na xam famille yi am problème famille yi nga daan na xam lu bari donc du coup aujourd'hui pour man pour nous revaloriser euh, fonction bob, il faut que que délégué quartier soient euh, qu'il soit euh, mais mais qu'on les copte directement qu'ils li conseillers municipaux C'est ce que je voulais dire. D'abord. est ce qu'il y' a une relation entre la mairie le chef de quartier. généralement regrouper de mairie généralement la mairie regroupe chef de quartier mm-hmm. spontanément ou de façon ponctuelle. Mm-hmm. def def mais pour moi, chef de quartier ou bien deux ou trois délégués. Les de quartier doivent être membres d'office des conseils municipaux. Mais naka la ñu leen di mais non non je sais pas ñu koy fale il faut trouver un moyen s'il faut changer la loi par rapport à ça on change la loi par rapport à ça ñu ne conseil municipal bu au moins il y a deux ou trois pour cent yu nga xam que dañu coopter directement mu bañ jaar ci ay élections mu en tout cas buy jaar ci ay élections mu jaar ci ay élections ñoom seen biir. Mm-hmm. ah ñu ñoom seen ñu fal ñaar wala ñet ñu xamné ne dina leen représenter directement. ci mairie conseil d'administration mu jaar sax d'ailleurs ci ay ci ay kayit nga xam ne ne que mairie bi dina xam directement lan mooy jafe-jafewu askan wi. wala koñ boobu ñan la ci war a waxal. voilà koñ boobu ñan la ci war a waxal. ba sa sa c'est important. parce que buñ ko mayul doole dinañ dem ba peut-être loolu dee. Euh, ba peut-être loolu dee et plus ñuy dem euh, plus muy dañuy gën di ñàkk doole comme je di dis urbanisation bi moo koy waral xëy na xëy na délégué de délégué de quartier bi nga xam ne moo moo moo nekk xëy na tey Thiès wala wala Diourbel wala kii mën mën na am. mën na bañ a bokk ki nga xam ne mu ngi nekk par exemple ah, ah, délégué de quartier bu Almadi mm-hmm. quand même délégué de quartier bu Almadi nekkul délégué de quartier bu bu bu Pikine ginnaaw raay mm-hmm, hein? mm-hmm, hein? du benn donc ça dépend de la situation également de quartier des zones euh, bi gën a sociale voilà gën voilà et généralement et généralement <laughs> bo bu ñu waxee te dëgg rek tax délégué de quartier ou chef de quartier fi mu ëppee njëriñ mooy ci quartier populaire yi les les waaw euh, ci en tout cas ci quartier populaire yi mais les quartiers les quartiers euh, résidentiel ah, peut-être que bonsoir ça. quartier on ne sait pas donc du coup moi je pense que ce sont des autorités qui sont à la base comme ce sont des personnes à la base qui sont là pour la communauté avec et pour la communauté mm. et qu'on doit pouvoir valoriser un peu plus euh, juste pour le bien de la communauté hein c'est important c'est mhm. important alors Ndeye Maty ñoom kon lan moy sen message wala sen yité bu bu gën a fës seen pas ñoom mais bon euh, yitte euh, ñen ci askan bi moy ñu baña jëlati pa bo xamantene ne dem na ba retraité pa bu dem ba nax parce que tamit dañu jàpp ne mhm. délégué de quartier pa rek mo ko nek pa bo xamantene ne dem na ba xamatu ci àdduna dara xamatu lu nit ñi du bëgg ak di bañ tok ben place rek ñu né nañ ko jël fal ko délégué parce que mom kat mo gën a ci quartier bi mais man tata mit sax ñu bari wax nañ loolu euh, gis nañ ne délégué war na mën a nekk euh, mën na nekk ne sax bu nekkee jeune xëy na du am jot day war a dem liggéey wala wala yeneen ak yeneen mais bon mu nekk daal koo xamante ne day am benn lien bi ak ñi nga xamante ne ñoo dëkk xama xam nga xam nga tey tey euh, Dissa Preira mi tey bu demoon tey ba màgget nga bëgg ko fay nga nga bëgg ko fay délégué dafay metti mm-hmm. parce que benn dina metti ñaar bu la dégloo balaa ngay wax nangam nangam bu la kaay xam nga yooyu kon dafay xaw a métti dañuy dem jël benn paam mel ni disapara fal ko délégué mu ne ca koñ ba boo waxee balaa ngay àggale mun la mën daal seen yooyu doon daal dafa xaw a métti boo bëggee daal lii ma jox la naa nangam këyit mën naa la ko liol waaye ay pour dem di la plaider rek nangam nangam donc nañu xool jeunes yi bu fekkee mën nañ leen impliqué et puis ñu fay war a valoriser am budget am déggoo kenn ki nee na dañoo war a dem ngénte a dimbali askan wi mais loolu effectivement dañu dañ leen war a financer ah, déggoon naa que Macky Sall daggaloon na leen salaire xaw ma nag ñaata la euh, waaye bëriwul woon waaw waaw tuuti rek la woon mais quand même on doit quand si on si bu fekkee da ngay jël en charge jafe-jafe askan wi euh, boo nekkee délégué de quartier war ngaa xëy suba teel le matin def le tout de ton quartier

ton quartier de, de sorte que euh, quand même nañu xam ne fii. il y a plusieurs choses euh, yu à faire ah oui. et le, le développement ça se passe toujours à la base. c'est important c'est très merci important merci beaucoup Prera. Préra euh, kon Ndeye Mati ñu ngi lay gërëm ci loolu am na solo lool di nga andi tey. Mm-hmm. Euh, di reportage boo xam ne day fàttaliwaat rôle. Mm-hmm. wala li ñu bëgg ci suñu chef de quartier yi nga xam ne mënuñu koo dindi. Mm-hmm. ndax lu ñu fi fekk la cosaan la ba pare daf ñuy renvoyer nag ci suñu ay valeurs. des fois bu ñu juumee ñooy gàggantiwaat xale yi tuuti. tegaat leen ci yoon comme ni nga ko waxee rôle bi ci ëpp solo nag mooy bu ay ñaari famille amee ay problème ñu tok tek waxtaan ak ñom delloo si waat leen ndax jibo ci la jamm xaj te ci la mm-hmm. lepp xaj donc merci beaucoup Ndeye Maty rendez-vous lundi prochain Inshallah. allah ah, ci benen reportage mais yaa ngi ñëw ci kanam ci midi culture euh, xëy ci ay reportage ak ñom Serigne Saliou Seck di la gërëm bu baax ok Inshallah. allez merci beaucoup ñu euh, jëm nag jeex daanaka ci euh, pàcc boobu